moo tax muy wax wax boobu tariixa boo xam ne ci gént la bàyyee ko ma ne ko d'accord bismillah tariixa bi ci gént la bàyyee ko ma dem ubbi ji madaari ju saalikiin fekk fa benn kayfiya benn wérdo woo xam ne ibnu taymiya daf ko daan wérdu ci yaa xayu yaa qayyum diggante jullik subaak jullik fajar ñeent fukki yoon ibnul qayyim nee na islam ibnu taymiya wérdo mu fonkoon la nee na képp ku koy def ñeen fukki yoon diggante sunna fajar ak faratay suba mhm. yàlla dana dundal sa xol yàlla dana dundal sa xol werdo bi ibnu taymiya utal na ko lim te dañ koy bañ mhm. werdo bi ibnu taymiya utal na ko heure buñ koy def mooy sag fajar mhm. werdo wi ibnu taymiya utal na ko ngëneel te dañuy wax ne lu am ngëneel yàllaa ko yeneentam dong nga ko mën a wax mën a leen werdo wi de man dama gëstu ba yam ci ne ndekete tàmbaleewul ci ibnu taymiya werdo wi ki mu bàyyeekoo ci moom ci ay gént la ko gisee la ko jëlee te gént gi yenent bi la gént sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko wérdo yi ba noppi wax ko ngëneel yi nekk ci wérdo yi comme ni ko ibnu taymiya nettalee waaye ibnu taymiya nag moom bi mu leen di jox wérdo yi waxu leen ne ci génte la bàyyeekoo dafa ñëw rek na leen wérdo yi ñeent fukki yoon la ngëneel lii moo ci ne diggante timi euh, jullik suba ak fajar gi lañ koy def mhm. ma indi leen référence yëpp loolu du thème bi waaye boo demee ci euh, saati bi ñëpp xam nañ ko téeréem mhm. nettali bi mi ngi ci biir téere saati bi moom moo ko fa indi mhm. fekk boobu saati bi mi ngi leeral bu fekkee ne dafa am wér do wu nit jot wala am bisaaraat boo xam ne ci gént la bàyyeekoo ñu ne la defal lim bi mhm. wala jàngal ñaan gi saati bi nee na duñ ko dugal ci bidaa wala ñu bañ ko lu dul dañoo xool loola ñu la jox ñu ne mi ngi bàyyeekoo ci gént lan lay wundu mhm. maanaam lan la lu mu mhm. doon ci loolu lay nettali ba nettali góor gi gént gis yenent bi sallallahu alayhi wa sallam mu jox ko wérdu wi exact bi ma indilee kooku loolu ci laa ne ko nag lancé naa leen défi wahabiya Sénégal gépp mhm. na dakk ngeen naan werdo tiijaan ci gént la bàyyee moo tax muy bidaa Cheikh Tidiane maara day taali ngeen def ko nitu bidaa Ahmad ibnu Taymiya am na dossier teg naa ko da ngeen ko layal yóbbu ko tribunal mooy wér wérdoom wi mu doon def ba ci la faatu ndax lii wane na ci la faatu mooy ibnul qayyim mi bàyyi ginnaaw nettali na ko ne lu seex bi fonkoon la léegi nag du ngeen jël ahmad ibnu taymiya def ko mu nekk cheikhul islam bëgg a jël ahmadu tijaani def ko mu nekk cheikhu mara day taali te kee wér dem ci gént la ko jëlee kee ci gént te cheikh tidiane wér doom yaqadatan laa manaaman la bàyyee ko léegi lenn mooy am da ngeen naan ibnu taymiya bi nitu bi daa ngeen bàyyi di ko wooyee cheikhul islam naan rahimahullah te lii ba léegi moom laay waxaat de képp ku ne leen wérdo cheikhu tijaan bi mu indi bi daa ne leen ko ibnu taymiya am na wérdo mum yoroon bi daa la mhm. danañ la ne nag naa ah, non yàlla yónnul ibnu taymiya ci nun de nga ne ko ah mais yéen da ngeen di wooteel ibnu taymiya journée fii ci Sénégal de mhm. maxtaar saara ko wax maanaam ki ma déggoon muy wax wax jooju noonu la maa ngi rappelé wu benn bis boo xam ne Cheikh Islam Ibnu Taymiya lañ doon màggal fii ci Sénégal moom moo doon def waxtaan wa moom <laughs> depuis lors nag léegi mu man at ak lu topp mhm. depuis lors mhm. maa ngi leen lancé défi ci wérdo Ibnu Taymiya ba mu daan wérdo te mu bàyyeekoo ci gént mais ilaa yow mi naa haadaaw waxuñ lu ci jëm duñ ko waxaat loolu nañ ko teg mhm. ci taabal ji ñu càmbar ko benn ngeen ne noo yàlla yónniwu ko ci nun d'accord yàlla yónniwu ko ci nun mhm. ñu nangu ne yàlla yónniwu ko ci nun mhm. mais léegi nag mu des nag da ngeen koy def nitu bidaa wala du ngeen ko ko def mhm. wala ngeen ne ah nangam loolu njuumte la ngeen yem rek ci njuumte la kese rek bañ ko taxe nitu bidaa kon tamit keneen ku mën ci doon waaye yem leen ci ne dafa juum rek ngeen yem fa bañ ko taxe nitu bidaa effectivement effectivement waaye dañuy jéggi loolu noonu la jël ko mel ne sey Seydina Cheikh Ahmed Tidiane lu leen neex ñu jël ko yàq ko ko duñ ko tudd ba ne rahimahullah wala radiyallahu anhu ba nopi fuñu tuddé cheikh islam ibnu taymiya ngén ne rahimahullah tuddé ko cheikhul islam lool nak euh maanduwul até bobu non le maanduwul lool dal luma don ma rappelé la pour bàyyiloo ko xel ñi nga xamné ñi ngi sétane ma sha allah li Cheikh Abdoul Aziz wax rek lañuy wax ci loolu moy amna ko xamné kenn mënu ko convaincre waxu ñu ngir convaincre ko mais dañuy wax ngir dëgëral pas-pasu ki nga xam ne moo aju ci tariixa bi. effectivement ñu wax ko ne li mu jàpp lu wér la. pour daaneel ndax euh, li ma ubbee xaw na gudd ñu bàyyi bàyyiwaat mu wër. bu ma ñëwee di tontu ci sa laaj. xam nga dafa am ñaar yuñ ñu sonalee. ñaar waaw ban ak ban. benn bi mooy lu tax ngeen di lal malaan di wasifa ñaar yu ñu sonal seen bopp ñoom. waaw waaw ñu sonal merci beaucoup jërëjëf. yu ñu sonalee seen bopp ñëw. Ah, <laughs> jërëjëf ci bëgg ko dindi te mënuñu ko dindi. te mënuñu ko dindi maanaam wax jee ñu sonal rek. waaye ñu sonal ñu sonal bi sax. jërëjëf dañ ko sonalee seen bopp. li ma moo doon wax bi fële wu la fële wu. loolu dararu barakal moo tax ñoom la sonal ko mm-hmm. mooy lal malaan di watifa waa ji sax fan yi bi muy xiiru ci vidéo boobu di xiiru dane mm-hmm. jël benn affaire sànni ko. waaw benn affaire la wax muy benn beneen bi mooy allah allah am na bindkat bu bokk ci ñoom bind na lu ne yekk nañu ko ci wax baatu allah allah mais benn ubbi rek laa ciy def mhm. bu ñu xuusee ci waxtaan wi ma delluwaat gën a xóotal incha allah lal malaan ngir wadifa desaa bokkul ci ponk yi mm, mhm. mm. man duub la lu ñu sopp la ci wadifa mhm. inda saabi bu ñu yeggee jëwhara ba ci juróom-ñaareelu per ba sax fa la cofeel gi di dikkee mën nañoo teg malaan mi ne bañ ko lal di wasifa ba yegg ci juroom ñaarelu per bi ñu lal malaan mi ndax dañoo gëm ne yenent bi day assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulilahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'd mbokk ñu ngi leen nuyu di leen ziar di ñaan borom bi subhanahu wa taala mu defal ñu tawfiq defal leen ko vidéo bi ñu fi duggal ci lañ bëgg ñëw rek ci ay tënk ki ci wax di Makhtar sar di askano ci at tariqa tijaniya Euh, wax dëgg yàlla ku déglu video bi dangay ruus ndax da ci na ni moom gëstukat la waaye nag tappalekat la ci caxaankat la dafa bëgg a ñëw di réeral nit ñi di gëlëmal nit ñi te dinañ ci ñëw benn par benn vidéo bi euh, wax dëgg yàlla moom dafa bëgg a layal li nga xamante ne mooy tariqa tijaniya te dégg ngeen li wax ci biir vidéo bi mooy tariqa tijaniya Cheikh Ahmad Tijani moom jëleewu ko sax ci ay nelaw mais da ko jilé yaqazatan ni non la ko yonent sam joxé te lolu défon nañ ci ay détails ni lolu ay tappale ci xal la yonent bi alayhi amul kenn ku mi dajel nan dalay jox lu aju ci diina ji ginnawum génné aduna rawati na sax nga ni du ci nelaw du gént té la ko jox ni jëxaratan nga gis ko lolu ay tappale ci xal la fowé li nga xamanteni moy mooy doom adamay parce que ñom ñi di wax li tay kenen ko xamanteni tay géntoon na wala sax tassé nak nit mun la ma yonent bi wax la leneen lo xamanteni sa mbirum aduna la wallahi xalaatoo ko def kon dañuy tappale ci xal kon ñii dañuy fawee diina yàlla subhanahu diina yàlla yi amul kenn ku yonente bi di tasee naan da lay jox dara wax dëgg yàlla bu fekkoon loolu ñi ci gën a yell mooy saxaaba yi bi yonente bi am a taxaw naan yonente bi fee maam gis naa ko ci nelaw mu naan ma nii naan ma nee wala sax waxantuma laa nag nga naan dafa dajeeg yow nii ah, mel ni jëmmam ji moo doon dund kon loolu ay tappale caaxaan la léegi nag loolu la bëgg a layal moom Maxtaar Sarr ah, ci tappale caaxaan ñëw fi naan am na ki nga xamante mooy ibnu taymiya am na weer bu mu daan def nangam ak nangam utal ko jamono utal ko nga dinañ ci ñëw loolu lépp te ak moo neexoon buy nettali mu nettali la nga xamante ne noonu la ñëwee parce que loolu bokkul sax ci li nga xamante mooy al adala ilmiya maandute xam-xam booy nettali nettali ne mbir ma ni mu ñëwee moo tax moom nee na dafa défier li nga xamante mooy al wahabiya ñoom mooy ahlu sunna parce que ñoom dañu am benn dossier moom mii tamit am na dossier parce que dafa sosal ibnu taymiya li mu wax am na loo xamante lu wér la ci dinañ ci ñëw ak ahlu sunna lan mooy seeni i taxawaay waaye am na ci loo xamante ne sos la parce que neen ibnu taymi dafa joxe werd boo xam daf ko jëlee ci gént waaye leeralul ni ci gént la ko jëlee loolu dara du ci dëgg nañu indil li nga xamante ne ñu ngi koy defee ma maxtaar sar nañu indil li nga xamante ne mooy lay ci wax ibnu taymiya ci ay téere wala wax ibnu qayim ni lii ibnu taymiya daan def werd boobu da koo jëlee ci li nga xam mooy gént loolu du ko fekk fenn kon wax dëgg yàlla lii ak tuumaal la parce que dafa ci kalamu shatibi dañ ci dégge mu ni li Ibnu taymi doon def amna kenn ko xamantene ne nettaleef nañ lañ wax nettaleef na yuhka amna ku ñu doon nettale muy kattaani ni mom géntoon na ni gis na yenen bi sallam yenen yonent jox ko lolu lolu lépp dinañ ci ñëw ak lan mo ci taxaway ahlus sunna wal jamaa kon wax deug yàlla li ne wax ji bo gisee li ko waral vidéo bi ak yenen vidéo yo xamante bari na dinañ ci ñëw inshallah ben par ben moy fan yi da nga gis tijani tijaani ya dañoo génn ci plateau yi dajalo di wax lutax parce que ab vidéo bu oustaz Omar Sall defone ci di leeral ni tudd yàlla boobu ñuy wax allah allah allah lolu sax tuddu yàlla tok nan allah allah allah wala nga naan huwa huwa huwa lolu ko oustaz Omar Sall waxe non la amé yàlla ko yàlla sam dara du ci l'islam jotewut ak l'islam dara parce que tuddu yàlla sax ci walu xel bala mo nek tuddu yàlla day nek phrase bo xamanteni complète la li ñu tuddee jumla mufida naam moy nga ni laa ilaha illa allah mu nek luñ xam mais tok nan allah allah allah allah lolu moy lan allah limi muy tekki mooy al ilah moy al maabud ku ñuy jaamu léegi yow est ce que xellu na nga toog naan ki ñuy jaamu ki ñuy jaamu ki ñuy jaamu ki ñuy jaamu loolu du lislaam naam ni ngi noonu wala huwa huwa huwa moom moom moom loolu day loolu day lislaam kon wax dëgg yàlla neexoon na wax dëgg yàlla bu fekkee ñoom dañoo génn di tontu la ca gën a yéeme sax mooy benn point foofu balaa maa continuer mooy lan moo tax ñoom li oustaz Omar Sall wax tuddul benn tariqa pourtant ñu jël ko moomale ko seen bopp ñoom te pourtant am na ñeneen ñu leen jiitoon ci ay sufiyanke yu doon wax ci wax yu bëree bari bëri kon lii nekkul bees wala ci la tàmbalee amna ñeñ ñeneen ay sufiyanke kel noonu lañ tuddé yàlla loolu sax du ko gën a di jëngal seeni bop ak melni kuy daanu han moo tax limaamu Shaafi la doon wax loolu xam nga du tay loolu tay tey ci deuxième siècle bi doon wax ni képp ko xamanteni mam bayiko na fi nga xamanteni moy Iraq han bayif ay sufiyanke yoo xamante ni wax dëgg yàlla képp ku jaxasoo ñom bala bëccëgu beccëk nga jaxasoo ñom bala ngono jot nga dof parce que lutax parce que mbir yañ doon def la du alquran du sunna kon wax dëgg yàlla ñoom lii ñu bëgg a jël moomal ko seen bopp pare naan dañ ciy teg nag ay porte plainte mel ni ñoom ñoomom moom Sénégal wala dañoo dëkk dañoo gën a dëkk kenn Sénégal ba jàpp ñoom daal mbir mi léegi porte plainte lu neex lañ koy defee oustaz Massal tudd leen la moo tax ñu bëgg a jël lii moomal ko seen bopp te ak moo neexoon nag ñoom li ñu jël moomale ko seen bopp li oustaz Massal wax mais buñ koy tontu ñu tontu ko ay ndëslaay alquran amul benn problème kon moom dafa wax ci xam-xam ni lii ni du l'islam bokkul ci li nga xamante ne mooy charia ñoom bu ñuy tont dañoo waroon ñëw ni lii kat ci charia la bokk parce que lii ma ko tettale mooy alquran ak sunna ci dégginu sahaba yi mbokk yi nañu ànd ak suñuy xel bàyyi tappaleeg ci xaale mais toog ci ab télévision di wax ah yow nga bëgg a layal sa tarixa ba nga xamante ni da nga nit ki sa sëriñ daf ko jëlee ci yonente bi yaqasatan nii jëleewu ko ci li nga xamante ni sax mooy nelaw mais yaqasatan la loolu defoon nañ ci ay leeral wax ni dara amu ci yonente bi salaam fekkoon day daje kenn yàqatatan ña ca gën a yell mooy saxaaba yi ginnaaw mu génne àdduna ay problème amoon na ci biir saxaaba yi ba der ay deret tuuru ci amul kenn ku mës a taxaw woote woo naan yonente bi salaam daf ñoo feeñ wala génn nañ ko ci nelaw nee na lii la ak lee la kon moom loolu la bëgg a layal moom Makhtar Sarr ñëw naan am na ku ñuy wax Ibnu Taymi am na werd bu mu doon def werd boo xamante ni ah da koo jëlee ci li nga xamante ni mooy gént mais waxul nag ci gént la ko jëlee loolu dara wéru ci ak li nga xamante ne mooy waxu Shaatibi indi moom boo koy déglu da ngay mel ni kii day gëstu kii day gëstu gëstukat la waaw benn gëstuwul ñaareel bi sax moom mënta amul sax niveau dégg li nga xam mooy kalaam chaati bi kalaam chaati bi nekkul tappaleeg ceexaan moom moo koy moom moo koy dégg tappaleeg rek ceexaan kat moo koy dégg te ak moo neexoon tamit buy tuxal mbiri maa mu tuxalee comme ni mu amee buñ delloo ci aliati sam bu chaati bi nga xamante ne la mu fay wax mooy ŋàññi bidaa ak soññ nit ñu ngoy ci sunna wax dëgg yàlla doon na neex mu liiral chaati bi li mu wax lépp lépp lépp lépp lépp waaw mais cof fi cof bëgg a layal li nga xam ne sa bopp naan am na ku ma défié koo xamante ni ibnu taymiya da doon def ab werd ba pare jox leen ko nii ah ci gént la ko jëlee mais waxu leen ci gént la ko jëlee loolu fan la am ahlu sunna wal jamaa dañoo doyade doyade boo xamante ne im taymi day ñëw indi benn werd ah eh, wax leen ko noonu ñu koy jël ko jëfe ak kan ci ahlu sunna mooy jëfe lii werd bi im taymi def kon ci loolu lañ bëgg a ñëw ci li nga xamante ni moom mooy ay eh, taxaw seetlu benn par benn di ñaan yàlla subhanahu taala bu musal ñu ci li nga xam mooy tappaleeg caxaan ak fo yàlla war ñu dëgg ba ñu xam ne mooy dëgg ñu topp ko waaye yàlla war ñu neen ba xam ne mooy neen ñu daat koy sori yàlla bu nekk loo ay lënt lënt la ci ñun vidéo bi bu fekkul woon wax dëgg yàlla ñi nga xamante mën nañ ci am ay lëntal sax daanaka jàpp ñëw parce que comme moom ni mu ko waxee ci vidéo bi moom daanaka boppam lay waxal nee na am na ñoo xam kenn mënu leen convaincre effectivement am na ñoo ci dëgg waaw parce que seen bànneexu bakkan la ñuy moo tax ahlu sunna wal jamaa dañu wuutee li nga xamante ne mooy ahlu bidaa ci mbir yu bëree bari bari bari bari nañ ci tudd tuuti rek ahlu sunna wal jamaa ñoom duñu par ci ay wax mais ci li ñuy parparloo mooy ci alquran ak sunna ci dégginu saxaaba yi loolu ci la ñuy parparloo fu ñu ko fekk lañ koy jël alquran ak sunna ci dégg na saxaaba yi wuutee li nga xamante mooy ahlu bidaa ñoom ci ay waxu nit ci ay nit ay rijaal ay nit la ñuy parparloo ay gis-gis am jaar leen lu ne kon ahlu sunna wal jamaa dañoo ràññiku foofu ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy lan ñoom ñooy ahlu bidaa waaw kon ñoom la ñuy parparloo mooy quran ak sunna ci dégg na saxaaba moo tax oustaz Omar Sall bi mu wax loolu la ko layalee li bokul ci l'islam ñom nak ñëw fi tay naan lay sama serigne ni la wala sama serigne la kon wax deug yàlla loolu la fa nek lo xamanteni luñu wara luñu wara sori la kon ahlus sunna wal jamaa ñom ci liñu atté wo moy tek mu nek balance bi moy alquran ak sunna mais pa li nga xam moy ay gis-gis nit ak ay gént ak ay yuma xamul waaw wuté na ahlu bidaa ñom dañ fi nan ñuk sunna dem top li nga xamanteni moy ay gént la ak ben way moom moko wax kon wax deug yàlla dafa melni yàlla ak yàlla ahlus sunna ak ahlu bidaa te duñ ay nawle kon inshallah ñëw ci li nga xamanteni moy taxaway yi ben par ben di ñaan yàlla defal ñu tawfiq kon taxu selu bu ñëk bi mbokk yi ci waxu Maxtaar sar gi nga xamanteni ay ci xan la moy sosal gi mu sosal Ibnu Taymiya ni lim doon def da koo basé ci gént fofu mo jar taxaw fofu lañ koy wax rek wax deug yàlla Maxtaar sar bu fekke li ngay wax deug la ci yow qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin indil salay bu fekke li ngay wax deug la moy indil ñu ci waxu Ibnu Taymiya wala ci li nga xamanteni moy waxi ndongami yi Ibnu Qayyim yi nga xamanteni mo nettali wax ci wala sax yeneen ndongam yëpp ibnu kathir wala ñeneen ñi indil ñu ci téere ibnu taymiya yëpp yëpp yëpp fan la ibnu taymiya waxee ni loolu mu doon def ci gént la ko basé loolu amul fenn doo ko fekk fenn kon yow tam ñu ngi lay defiyee am nga dossier kon wax dëgg yàlla tuumaal nit baaxul kon ibnu taymiya loolu mu doon def nga ni ci gént la ko basé bi muy joxe werde bi waxul loolu nag loolu ak tuumaal la bu fekkee ni wax dëgg yàlla li ngay wax dëgg la indil lay ci loolu ni ibnu taymiya lam doon def da koo basé ci gént bal au contraire motax tax wax dëgg yàlla waron ngeul am ak mandute lire ibn qayyim lim wax ibn qayyim lolou mi ngi ko tukhol ci madaariju salikin tukhol nako ci ñaari beurep ci madaariju salikin beurep bu jekk bi dafa ne wa min tajribaati salikin tajribat moy lan moy luñu essayer essayé nit ki essayé moo tax ibnu taymiya mu def ak essayer la bo xamne moko moo def mais mom la concerner lolou kenn duko askane l'islam bal nekul ñu yonal mo tax tay bu taxawé nan defee naa wahabi ahlus sunna lay wax ni defee naa leen kenn sañ ta wax ci wax ibn taymiya ankay lolou borom xam bañ ko leer leerle day tay ibnu taymiya boo xam ne leer lañu loolu mu doon def du sharia loolu mu doon def loolu ak njumte la loolu mu def nekkul lu ñu yoonal amul ndës laay parce que ahlu sunna wal jamaa duñ parparloo ñoom kan moo ci sañu taxaw tey di wax seen Cheikh doon def dafa juum fii loolu dëppoowuta kenn sañu ko bala ñoom dañu jàpp ni seen tariqa boo ci duggee ba génn sax yow da ngay alko te pourtant loolu ñenn ñenn ñi lañ koy jëmale moom dafa favorable pour ñenn ñi ah te pour ñeneen ñi waaw parce que ki nga xamante mooy sëñ Touba moom nekkoon seen tariqa boobu est-ce génnu ci ba dag kurusam dem dem créer tariqa bopam ndax kon ñom dañuy wax lolou ci mom ne ku bàyyi sen tariqa day alku kon ci ay tappaleeg caxaan ñi ci lañ nek mbokk yi nañu yewu utiliser suñu xel xamni alquran ak sunna moy deug leneen lo top lu du lolou ëlëk yamal xel yaangi sank sa bop kon ak moo neexon mom ak mandute tuxal li nga xamanteni moy wax ibnu qayyim ibnu qayyim dafa ni wa min tajribati salikin bokku na ci li nga xamanteni ni sóobu ci yoonu yàlla dañ ko essayer essayer ibnu qayyim essayer la wax essayer waxul sax ni dafa bokk lo xamanteni dañ ko yoonal wala luñ sopp la waxul lolou de ومن تجربات السالكين بوكنا تي ليغا خامتاني ني سوبو يال اسيي نانكو التي جربوها فالفوها صحيحه دنجكو اسيي مو نيك لو خام لو لا تي نيوم مي لو خام كين داكاي اسكن شريان مور ابن قيم نخ بيم وخي بري بيم توخلي وخ ام تاي بري نخ دافو ني لول لو نسوب لا ولا باخنا ولا من داناكو ديف ولا نانغام نام لول تاميت دافا لاج ليغا مو ندس لاي ابن قيم وخول تي لول دارا دافكو توخال رك ني بوكنا تي ليغا خامتاني ني دون سوبو جيون يال باسكو تيربو لول كو تخاجو مدارج السالكين مدارج saarikin mooy ñuy soobu ci yoonu yàlla bëgg a jige yàlla jaaree ko ci jaamu ak dimbali ko ci moom moo tax téere bi noonu la tudd madaariju saalikin bayna manazil iyaka naabudu wa iyaka nastain wax dëgg yàlla kon dafa ne wa min tajribati saalikin bokk na ci li ñuy ñuy soobu ci yoonu yàlla li ñu essayé essayé gis ni lu am lu am njariñ la ci moom mu ni anna man admana ya xayu ya qayum la ilaha illa anta awrathahu dhalika xayaat alqalb wal aql loolu moom lu wér la comme ni ma ko waxee ni ibnu taymiya moo wax ni ibnu qayim nettal ni ibnu taymiya ni képp koo xamante ne taqoon ak loolu mooy di wax yaa xay yaa qayum laa ilaha illa anta képp ku taqoo loolu nee na yàlla dina ko lan dina ko defal li nga xamante ni mooy xol buy dund naam kon laa chakkan tudd yàlla ku koy def borom bi daf la defal xol buy dund loolu amul ishkaal loolu amul problème moo tax na ñëw ci kalaamu shaatibi kalaamu shaatibi loolu amul problème mais problème bi fi mu nekk rek mooy ñeen fukk maam quarante fois bi ñu ko war a def ak tamit heure bi foofu problème la foofu dafa laaj masilaay ibnu taymiya ku ibnu taymiya moo ci am ku ko mënti wax dañ naan loolu amul du sunna ne amul ndëslaay kon ahlu sunna dañoo maandu duñu parparloo ci kenn moo tax ibnu taymiya loolu mu def moom mi ngi naan amul kenn ku ci ma wax an kay ñaata borom xam ñoo def fatawa ibnu usaymi def ci fatawa ah nasir barra ak ñeneen ñu baree bari ci borom xam leeral loolu nekkul lu ñu yoonal te ibnu taymiya sax amaana daf ko sukkandiku ci xadis daif ndax dina ñëw ibnu taymiya moom dafa gis ne xadisu daif bu fekkee dañ koy eh, wax ci li nga xam mooy luy soññee la li nga xamanteni moy targhib wa tarhib lolou meun nañ ko jël dinañ ci ñëw inshallah kon ki xamul wax ibnu taymiya liiralu ibnu taymiya a dégg ben netal rek bëgg ko ñëw comparer li nga xamanteni mom ñom mom lañ créer seen tariqa bobu bëgg saxal li nga xamanteni moy neen nan nangam ak nangam kon ay tapalek ci xala kon ibnu qayyim bi muy tuxal wax ji ñu jàng motax may wax dafa ni wa min tajribati salikin bokku na ci li nga xamanteni ni ñu doon sóobu ci yàlla ci yoonu yàlla essayé nañ ko essayé essayé mooy essayé dafa diin islam day essayé diin islam day texte kon ibnu sayba loolu mu essayé woon ci boppam la njuumte la amma nag tudd yàlla ci boppam day dundal xol loolu la am loolu dara newu ci moo tax man ibnu taymiya dafa saxal foofu ngëneel dafa am benn ngëneel ngëneel bi mooy kuy tudd yàlla yàlla day dundal sa xol loolu xadis moo ci ñëw xadis yonente bi yonente bi alayhi salaam moo ni mathalu alladi yadkuru rabbahu walladi laa yadkuru rabbahu mathalu lxayi walmayit misaalu ki nga xam day tudd yàlla ak ki dul tudd yàlla dafa mel ni koo xam ku dee ak ku dund la moo tax kii tudd yàlla xolam dafa dund ku tudd yàlla xolam dafa dee loolu kon amul benn problème kon bu ne Ibnu Taymiya dafa saxal li nga xamante mooy ngëneel te ngëneel koy saxal ci charia lañ koy jëlee effectivement Ibnu Taymiya saxalul benn ngëneel mais lim ni yàlla subhanahu wa taala ku tudd yàlla daf lay day dundal sa xol loolu xadis moo ci ñëw yonente bi alayhi salaam mu ni ki nga xam misaalu kii tudd yàlla ki tudd yàlla dafa mel ni ku dund ak ku dee kon loolu jar bàyyi xel la am maana su fekkee Ibnu Taymiya waxtu bi mu ko doon def par exemple bu ñu nodd bu ñu jullee bu ñu bu fajar ci sunna fajar buñ julé ñaar rakka sunne fajar ba kéro ñuy taxawal julli suba loolu ci bopam dafa laaj ndess laay ibnu taymiya ko ibnu taymiya mo ci am kon ibnu taymiya loolu mu doon def ak tajriba la tal tax la gëna not mo ibnu taymiya loolu mu def amana daf ko basé ci li nga xamanteni ne mooy la mooy xadis daif dinañ ci ñëw waye nak nga ni ci gént la ko basé ba pare waxul ni ci gént la ko basé loolu sos la dara wéru ci kon ibnu taymiya loolu mu def han basé ko ci nga ni da ko basé ci gént loolu amut ñaarel moy loolu mu def nekkul lu ñu ah moo xam ci walu waxtu bi la bim ko don def ak tamit lim bam ko don def moy 40 fois loolu dara kenn yoonalu ci dara lolou lu sunna naam kon lolou dafa laaj li nga xamanteni moy ndess lay motax amul kenn ko xamanteni ci ahlus sunna ki geuna a sax def mës a def werd bobu wax ma ci kenn ko xamanteni dafa taxaw loolu di def waaw wala mu jël werd bobu wala jàpp ni lolou sunna la wala lu ñu yoonal la kon lolou motax ibnu qayyim sax bimu waxe pare mom defu ci ben toftal wala commentaire nan lolou sunna la wala lu ñu sopp la dedet mo dafa ne min tajribaati salikin bokku na ci li nga xamanteni ñi sóobu ci yoon yàlla essayé nañ ko essayé nak bokku na li nga xamanteni mom moy lan mom moy dina yàlla subhanahu wa taala te ibnu taymi ko xam xam li nga xamanteni mo taxaw gi mu taxawon ci sunna de xex li nga xamanteni moy bida kon xam nga bu defé li def ko ci li nga xam mooy bànneex bakkanam mais amana mu basé ko ci li nga xamanteni moy ci hadith bo xamanteni wirut te loolu mooy li gën noot dinañ ci ñëw kon li ñu bëgg wax mooy nañ yeggal ibnu qayyim wax ji mu wax ni dafa ni wa kaana cheikhul islam ibnu taymiya qaddasallaahu ruuxahu shadida lahji biha jidda ibnu taymiya da daan répété lii nga xamante ne mooy lii nga xamante ne mooy yaa xay yaa qayum laa ilaha illa ant te yaa xay yaa qayum laa ilaha illa ant tudd yàlla bi dafa rot ci li nga xamante ne mooy xadis kon ibnu taymiya boo xoolee dëgg-dëgg moom lam doon def am na fu mu ko basé mais problème bi fi mu nekk rek mooy waxtu bi mu ko doon def ak limba mais yonente bi alayhi salaam moo wax ci xadis yaa xay yaa qayum waaw bi rahmatik astaghith mu ni daawatul makrub mooy ñaanu ku nekk ci njàqare mooy allahuma rahmatak arju da nga naan yàlla yow maa ngi yaakaar sa mande fala takilni ila nafsi tarfat ayni bu ma bàyyeeg sama bopp lu toll tarfat ayni wa aslih li shani kulla yàlla nga yëwanal sama mbir yëpp laa ilaha illa ant waaw laa ilaha illa ant kon tudd yàlla boobu bu sax la moo tax li gën a li ko gën a confirmer mooy li ñëw ci hadith anas yonte mu ni fatima lan moo la tere boo déggee nga dégg ci li nga xam moom laa lay dénk mooy nga wax saa yoo xëyee gis nga kon im mën ngeen kon saa yu xëyee moom dafa jàppoon ni bu xëyee diggante boobu ba li nga xam mooy diggante suba foofu ci xëy la bokk boo xëyee wala nga gont nee na fatima yonte moo wax ni ko deel wax yaa xayu yaa qayuum bi rahmatika astaxiif yaa xayu yaa yow aji dund gi yaa qayuum bi rahmatika siirmande astaxiif lay xettali kon aslix li chani kulla wala takilni ila nafsi tarfat ayn moo tax alimam chaati bi muy tuxal lii kon ni ko moom maxta Saam indee tappale caaxaankat bi bi muy indee dafa ibnu Taymiya maam lii maam lii nga xamante ne mooy lii amul benn problème tudd yàlla subhanahu wa taala yaa hayyu yaa qayyum bi rahmatika astaghith laa ilaha illa anta lool sax na ci sunna mais problème fi mu nekk mooy la am ni mu ko lim bi mu ko lim quarante fois loolu moo amul ndëslaay ibnu Taymiya ku ibnu Taymiya wax ko ñaareel mooy jamono ji bi mu ko jagleel ni heure rek lañ ko war a def lool taxoog loolu day dugg ci li nga xam ne mooy cadre cadre ihdaaf sos kon loolu nekkul loo xamante ne lu ñu yoonal moo tax borom xam-xam ahlu sunna yi leeral loolu mu leer nañ nañ nañ kon ibnu qayim lii la wax dafa ne wa min tajribati salikin allati jarrabuha fa alfawha sahihatan anna man admana ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta awrathahu dhalika hayat alqalb walaql من ابن تيمية وكان شيخ الإسلام تيمية شديد اللهج بها جدا وقال لي يوما من وخناكو بين بس نيكو ñaari tur yi de mooy alxayul qayum am na jeexit boo xamante ne bu mag la ci dund li nga xamante ne mooy la mooy xol te loolu wax nañ ko sànq yonente mu ni misaalu ki xam day tuddu yàlla ak du tuddu yàlla dafa melni ni ki nga xamante da de ak kuy dund naam mu ne Ibnu Taymiya don na juñu ni ñaari tur yi dafa bok mom ci turu yàlla yu màgg yi la te loolu amna na yenn boo ko wax ni ayul hayyul qayyum dafa bok turu yàlla yu màgg ismu ismullahi azam parce que tur mbooleem turu yàlla day dellu ci al xay mbooleem melokaanu borom sante day dellu ci li nga xamante al qayyum moo tax Ibnu Taymiya do wax ni li Ibnu Taymiya nee na Ibnu Qayyim nee na dégg Ibnu Taymiya di wax ni كيب كو خام تاكونا لي دي ديف 40 فوا بس بو نيك ديغند سنة فجر اك جولي فجر يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث كون لول ساخنا سي سنة موي يا حي يا قيوم لا اله الا انت برحمتك استغيث مي في بروبليم بي نيك موي وقت بيم كو اوتال اك ليم بوب ابن تيمين كيب كو ديف لولو حسرت له حياة القلب ولم يمر قلبه كيب كو ديف لولو موي ديغا ام دوند خول دو ام خول بو دي كون لول لا نيو وخ ابن تيمين لولو وخ امون ندس لاي دو سي القران دو سي سنة موي jamono jim koy def ak li nga xamante mooy limba ba loo amul ci ndës laaj alxuraan sunna moo tax ibnu ibnu Usaym bi ñu ko laajee laaj mel nii ak yenn borom xam yu bari dañ ne lii ibnu taymi def nekkul lu ñu yoonal waaye nag amaan daf ko basé ci li nga xamante ne mooy lan mooy xadisu daif parce que ibnu taymi daf bokk ci doxalinam mooy di basé li nga xamante ni mooy ci xadisu daif loo xam dafa ñëw ci li nga xamante mooy ngëneelu jëfi wala loo xam dafa ñëw di xemmem loo wala muy ragal loo boo ci basé li nga xamante ni du cosaanu jëf mais luy xemmeem loola wala muy ragal loo amul benn problème te loolu dinañ ci wax ibnu Taymiya rahimahullah kon li nga xamante moom la Makhtar Sarr wax kon dara du ci dëgg mooy Ibnu Taymiya loolu mu def daf koo basé ci gént dafa waroon dellu am ak mandute dellu ci Ibnu Taymiya lan la gis lan mooy gis-gisam ci wàllu gént ba pare parce que xam nga Ibnu Taymiya bu fekkee dañ ko xam ci ŋàññi li nga xam dañ koy jëlee ci ay gént ay jaamu yàlla ba pare ñëw di def loo xam dañ koo basé ci gént kon loolu Ibnu Taymiya contradictoire la kon loolu amut moo tax Ibnu Taymiya boo demee ci Majmuul Fatawa day wax ni fa amal manamat fa kathiirun minha bal aktharu kadib la wax li ëpp li ñuy jëlee ci ay gént بل لي غنا باري لول صاح نينا اي فن لاي سوس لا من وقد عرفنا في زماننا في مين دون واخ تي ليغا خامتيني موي نيغا خام دا ني غنت نان خاوما ام أه، نا يونت بي فاجنا لين نان لين باميل حسين مي في ولا مي في مي في لول دون دينونسي دي واخ ني لول دار دو تي دغ ني اوب نيغا خامتيني ني غنت لا ني واخ دار دو تي دغ دين كون نان لي واخ ام تيمي ام تيمي من فامل منامات فكثير منها تي مجمل فتاوى ها أه؟ مني تي توم 27 باز 4 4 457 mu ne fa amal manaamaat fa kathiru minha bal aktharuha kadib li ëpp ci li ñuy nettali ci ay nelaw dara du ci dëgg mu ne wa qad arafna fi zamanina bi misr ñun xam nañ ci suñ jamono ji ba mu nekk Égypte lu appare amaana sax loolu incha allah ñëw ci mooy ay porte plainte bi ñuy naan dañ koy def oustaz Omar Sall nga nga nga waa bida ak tasawuf dañoo yàgg sonal ahlu sunna ibnu taymiya ndeysaan dund bépp ci ay kaso la ko passé dinañ ci incha allah amaana su fekkee waxtu may na ko te doon def looloo mooy ay ñoo xam ay tappalekat la ay caxankat gis ne kii mi ngi dimbali sunna ndeysaan ñu leen boole ko li nga xamante mooy nguur parce que ñoom dem nañ ba ñàkk lay amatuñ lu ñu def jàpp ne kii daal dañ koy boolee nguur mu tëj ko loolu mooy solution bi quoi te fekk loolu solution loolu day gën a jëmale sunna kanam dinañ ci ñëw incha allah mais li ma bëgg wax mooy Ibn Taymiyya neen bi mu nekkee Égypte déggoon na ci ñenn ñoo xamante ne leen xamoon wala sax fi nga xamante mooy iraq wala sham ñoo xam ne dañ doon woote woo man yaddaci annahu raa manamatin tatacallaqu bi baad albiqaa annahu qabru nabi aw anna fii athar nabi wa naxwi dalik ñoo xam ne dañ doon woote woo naan ñun ñun di gént nañ gis ni yonent bi bàmmeelam fi la nekk wala yonent sàngam bàmmeelam fi la nekk mu ni wa naxwi dalik ak lu mel noonu mu ni wa yakunu kaadiban te li muy wax kooku dara du ci dëgg ay fen la waaw dara du ci dëgg mu ni wa hada shay muntashir lii nag dafa nekk loo xam lu tasaaroo la mu ni fa raa il manaam gaaliban ma yakunu kaadiban وبتقدير صدقه من لا بلي بار كي خامنتي موي غينت لامي واخ دارا لو سي دغ ميم بو فيكون دانيو نتابلي صاح ني موم لامي واخ دغ لا من فقد يكون الذي اخبره بذلك الشيطان الله اكبر ابن تيمي لي موي تاصيل علمي واو نينا كون نيغا خامنتي نيوي غينت دي واخ نان غيسنا نانغام غيسنا نانغام غيسنا با مل يونت في ولا في لا كي نيك ها ولا غينت نا نيو ما ديل سراخي دارا باسكو بلا من من نواتي ولا يمل نون لي داكاي فاق نينا ني اوب سي ني واخ لول دارا لو سي دغ ay fen la même bu fekkoon neen dëgg la sax amaana ne ko ko informé loolu du yonent bi mais seytaan la te loolu am la ñu bëri tey dañuy génn naan yonent bi nangam nangam moo tax yonent bi islam boo xam ne leeral nañ naka ngay mën a xamee ni kii kim génn yonent bi la mooy yonent bi wax ko loo xamante ne dafa sax ci charia amul lenn ak ndollantal lu mu ci dolli te loolu dina ñëw ci kalaamu Shaatibi waaw ak nga xam te loolu bégal jaam bi la par exemple nit ki génn yonent bi alayhi gis ko na dëgg ni moom yonent bi la yonent bi ni ko góorgóorlu ci topp sunna góorgóorlu ci ngoy ci alxuraan sunna loolu amul leen lu bees <laughs> yoon daf ko soññ ci loo xamante ne lislaam jàngal ko wala mu gént yu gis yonent yi mu ne ko na nga maytandiku li nga xam mooy bidaa na nga maytandiku di sos ay tariqa <laughs> loolu bu ko génte tamit amul benn problème parce que loolu lislaam moo ko njëkk a dénoncé kon amul kenn kuy gént ci lislaam yonent yi maanaam daf lay jox lu bees wala nanga amut dina ji mat seuk al yawm ak lakum dinakum kon motax tax im Shaatibi dina ci ñëw ci waxam joju bi mi tuxal li nga xam moy gént gi katani gento dafa ni lu mel non fekki amna nga xam dafa ñëw di dëgëral lo xamanteni ci cosaan la bu sax ci sharia han loolu limi tetle rek moy ak bu fekke lu baax day kon day bégal jambi niko gëna gënal gor gor ci la nga nek moy li charia digle mu nek lu baax bu fekke safanu la tamit day gëna a jambi diko xop pour mu bàyyi lo xam naka sulul non la am maa nag di gént dara han ci charia dañu ci baser dara lo nek lo xamanteni ne yonal la kon inu tayme muni fi muni kon ki gént di ci tuxal affaire di ci saxala affaire koku la plupart ay fen la ay kàcc la ay sos la même bu fekkon dañu natable sax bi taqdir sidqihi ni deug la han amana ko informé shaytan la muni ni wa ruya al mahdha mahda lu de li mooy xam-xam allati la dalila yadull ala sihhatiha la yajuz an yathbuta biha shay nee na gént goo xamante ni amul ndëslaay ci alquran ak sunna ah boo xamante daf koy saxal ah di ko wéral nee na loolu daganul mukk mukk mukk mukk ñu ci saxal dara ci lislaam mu ni bil ittifaaq loolu boo xam yëpp ci dëppoo kon naka la Ibnu Taymiya mën a waxee lee pare tourné waat naan day def loo xam ne werd boo xam ne ci génneel ko basé kon loolu nekk nekkul wér contradictoire la moo tax Ibnu Taymiya mu ni sax na ci saxiix yonente bi salaam ci xadis wér mu ni ar ruya thalatha gént ñett la ruya min allah gént bàyyi koo ci yàlla nga gént lu baax kon loolu da nga cee war a kontaan ñaan yàlla subhanahu taala te loolu lu baax loolu day fekk mu nekk loo xam ne dëppoog sharia la waaw wa ruya mimma yuhaddisu bihi almaru nafsahu ak gént goo xamante ni nit ki daal moo toog di def ay imagination di xalaat loolu la plupart mën na ko gént wa ruya min ashaytan wala gént boo xamante ni ci shaytan la bàyyi ko kon ñetti gént façon gént yi moo am ci l'islam kon ibnu taymiya lii la leeral lii la leeral waaw moo tax mu ni fa ida kaana jinsu ruya taxtahu anwaun thalatha bu fekkee ni kon gént ci boppam ah dafa am ñett yo xamanteni ñoko teunk muni fala budda min tamyiz kulli nawin minha an naw kon nak faaw ñu xamé ban façon gént la ci gént yi kon gént du gën ñett comme nako ko yonent sam leer le benn mu nek gént bo xamanteni ci yàlla la bayiko muy lu bax lo xam du wuté ak l'islam wala gént bo xamanteni nit ki moom mooy imagine rek di waxtul bopam ba gént loolu wala mu nek lo xam ci shaytan la bayiko kon li lo ci dégg mooy ibnu taymi wax deug yàlla mam saxal na ci ay qawaid ay waxam yu bare bare ni li nga xamanteni moy gént kenn du basé kenn du ci basé dara dara dara dara amul lenn luñu basé ci gént lo xam ci l'islam la bok kon ibn taymi naka la mën waxé loolu pare ñëwaat di def lo xam daf ko basé ci gént donte wax ko loolu waxé maxtaar sala do wax ibnu taymi kon loolu nekkul wér motax borom xam-xam yi leeral ni ibn taymi loolu mu def la plupart daf ko jëlé ci li nga xamanteni moy hadith wér ci hadith bo xam xadis bu wérul la moy hadith dhaif parce que dafa bokon ci doxalinam mooy xadiisu daif ibnu taymiya da koy tuxal sax lu bari di tuxal wax ibnu qudaama naan même bi muy tuxal ci li nga xamante ni salatu tasabih mun ne am na ñoo xamante ni dañ koo yoonal am na ñoo xam yoonaluñ ko mu ibnu mubarak bi nga xam dafa gisoon lu ñu la abdullah ibnu mubarak moom dafa gisoon ni lu la waaye am na melokaan boo xam daf ko doon def melokan boo xamante ne saxul ci li nga xamante mooy xadis wér la parce que ñoom dañu gis ni bu fekkee ni jëf gi sax na ci cosaan am beneen xadis boo xam dafa ñëw daif boo xamante day wax ci luy xemmem loolu amul problème mën koo jëfee لو انتو دي العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال مي كو خامو الحديث الضعيف خامو الحديث الصحيح خامو الحديث حسن نيو توك دي واخ نون ملي خام خام مام تي خال لك فولا لول تابل لك تي خال مو تيم طيب، تيم طيب، دي ولي واخ بي واخ تي واخ امام احمد رحمه الله تعالى دافاني امام احمد نينا تي ماني مول فتاوى من قول احمد بن حنبل اذا جاء الحلال والحرام شدتنا في الاسانيد واذا جاء الترغيب والترهيب تساهلنا في الاسانيد من وكذلك ما عليه العلماء من العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال من ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا يحتج به بوقت جاء نجي يوم كون مني إمام أحمد يوم برب حمد نجي بين قاعدة من يجفن كوتي علم الحديث موي بو فكين حديث دفنيو دادي أمبلو دغان أغلو حرام دني ترى لول تي تالا لكي بو فكي حديث دفنيو دي وقت لغا حمد ما ينجني لجف غا حمد تني أمبل لغا حمد تني موي لدغان لغلو حرام لا bu boba dañuy xawa saggan ci li nga xamante moy cialale gi parce que lolu amu gravité mais ama hadith bi ñu di wax ci atté li ko def nangam li ko def nangam boba dañuy taral ci li nga xam ne asaanid ibnu taymi ni wa kadhalika ma alayhi al ulama min al amal bil hadith al daif mu niki nonu borom xam xami ci la nga xamante ci ca lañ sukkandikoon di ko jëfee bu li nga xamante moy hadith bo xamante bu wérul la ci fadail amal ci ngeenelu jëfe kon ibnu taymiya lolou mo def tuddu yàlla amna ci san waye amana mu sukkandiko ci hadith bu daif bo xamante dafa ñëw di wax ci li nga xamante moy heure bobu wala li nga xam moy lim bobu mais ala kulli hal lu mu ci lu mu ci mënti doon lolou nekkul lo xam lu ñu yonal la loolu nekkul li nga xamante mooy sunna la loolu dafa wuuteeg li nga xamante ne mooy sharia bu wér kon bi la ba kullu bidaatin dalaala kon loolu dañ naan loolu bi daal Ibnu Taymiyya loolu def nekk lu ñu moo tax borom xam-xam sunna yi dénoncé ko wuuteeg ñoom ñi nga xam dañuy parparloo kenn sañ ta taxaw ni sama sëriñ la mu def nekkul noonu moo tax Ibnu Taymiyya ni laysa maanaahu ithbaatu l istihbaab bil xadiis alladi la yuxtaju bi loolu kenn du ci déggee ni dañ ciy saxal loo xamante ne lu ñu sopp la ci xadis boo xamante ne wérul mu ni fa inna l istihbaaba xukmun sharci lu ñu sopp de atteb sharia la parce que atef charia comme ni ngeen ko xamé djuroom la lu haram ak lu ak lu luñu sip han ak li nga xamante moy lu dagan ak li nga xamante moy luñu sop ak lu war kon mu listihbab hukm shar'i luñu sop atef shari'a la kenn du ci saxal dara lu fala yathbut illa bi dalil charia من ومن أخبر عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع من من الدين ابن تيميه لا waxee لو mel nii نيو دي نان داي ديف day def werd boo xam daf ko basé ci li nga xamante ne mooy gént mu ni di wane yàlla bëgg na li ci jëf yi te amu ci lay bu wér neena koku yonal na ci diina yàlla maa lam yadan bihi llah kama law athbata al ijab aw al tahrim ibnu taymi naka lay saxalee lii ci ay règle yu bari bari bari ba pare ñëw na day def werd bo xamanteni daf ko baser ci ay gént kon lool ay sos la mu tasaa la dara du ci dëgg muni muni muni كن من وإنما مرادهم بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو مما يكرهه بنص أو إجماع كتلاوة القرآن والتسبيح والدعاء مني بروم خم خم لين نم كي سهل يجف موي مو نيك لو خم دفا صح تي القران والسنه تي تكس القران والسنه ولا دبو لو ملي القران ولا التسبيح ولا الدعاء كون يوي مبل يو خامتني صح لا ووتيك ليغا mooy li nga xamante ne mooy xadis daif kenn du ko saxal ci loolu mën nañ ko saxal nag ci li nga xamante ne mooy doon sax loolu wutale ci biir borom xam am ñoo xam ne dañoo gis ne xadis bu daif moom kenn du ko jëfandikoo ci dara mais ibnu taymi dafa gisoon ni xadisu daif mën nañ koo jëfandikoo ci fadail amal nga xamante ne jëf ki sax na ci cosaan lu mel ne tuddee yàlla waaye nag waxtu baak li nga xamante mooy limba amaana mu gis loolu mën nañ ko jëfandikoo ci xadisu daif donte sax loolu nekkul loo xamante ne lu wér la moo tax mu ni fa ida ruwiya xadithun fi fadli baad al amal bu fekkee dañoo solob xadis ci lenn ci jëf yi nga xamantene dañ ko sopp gis nga fadail amal muni wa thawabiha wa karahati ba'd amal wa iqabiha muni fa maqadiru thawab wal iqab wa anwa'uhu idha ruya fiha hadith la na'lam annahu mawdu deglu limay xam-xam neena bu fekkee dafa ñëw ci ngeeneelu jëf yi maam jëf gi saxna mais ñëw na ci ngeeneel yi nañ ko def ci limbi wala nangam naam neen loolu bu fekkee ni xamul ci hadith boo xamante ne dañ koo fental yonente bi salaam nee na jaazat riwayatuhu wal amalu bihi dagan na ñu daal koy nettali daat koy jëfee bi maana mu ni lim ci nam mooy an na nafsa tarju dhalika thawaab bakkan de wala doomu aadama day yaakaar am ci loolu li nga xamante mooy yiw wala mu ragal li nga xamante ne mooy am ci loolu mbugal déglu mu jox exemple mu ni ka rajulin waa joo xamante ne dafa mel ni yaalamu anna tijaar tarbax commerce day am bénéfice waaw lakin balagahu annaha tarbaxu ribxan kathiran mais mu am beneen xadis boo xamante xadis daif la ñëw ni de commerce de day joxe li nga xamante ne mooy bénéfice bu bëree bëri bëri من فهذا إن صدق نفعه, نفعه وإن إن صدق نفعه وإن كذب لم يضره لول بوكو دغالي دينا كو جاري واي بوكو ودي دوكو دوكو واني دارا من ومثال ذلك الترغيب والترحيب بالإسرائيليات والمنامات غيسنغا شاهد بي نون كون اينو تيمي ليرال نا نيكيتي كات واخ دغ يالا نيت كي من نا سوكانديكو سي حديث بو خامتاني ويروت بو فكيني سي فضائل الاعمال لو ملني واجو خامتاني xam na ni commerce kat wax dëgg yàlla ko def bu la yàlla defal tawfiq di nga am li nga xam mooy bénéfice mu dégg ci xarit bu daif boo xamante ne daf ni ko commerce su ko def di nga am bénéfice bu bëree bëri bëri mu ne loolu ku ko dëggal tamit ah dina la jëriñ waaye boo ko weddee tamit du la wàññi dara kon ibnu taymiya dafa amoon li nga xamante ne noonu loon ak li nga xamante ne mooy xaalis daif moo tax borom xam bi ñu càmbaree li nga xamante mooy ay téeréem parce que nekkul un plus un égal deux déedéet dañuy topp li nga xamante ne mooy parcours am xool kii ni mu doon xeexee bidda ni mu sonne woon ci dimbali sunna ak bu fekkee dafa def lu mel nii kon amaana fu mu ko teg mais amul ndëslaay boo xam moo koy wane moo tax borom xam dénoncé ne Ibnu Taymiya la mu def nekkul li nga xamante mooy sunna am ci nag li nga xamante ni mooy ah ak ñemee gu mat sëkk mais moom bu taxawee tey naan damaa défier loolu loolu borom xam kan lañ ci wax ñaata borom xam ñooy moom moo dul gëstukat kon la ñu bëgg wax mooy Ibnu Taymiya loolu mu doon def mi ngi ko basé ci li nga xamante ni moom mooy xadis boo xamante ni xadis boo wérul la naam kon loolu mooy li nga xamante moo dëppoog Taymiya leeral parce que Ibn Taymiya mënta leeral dàq lii ba pare ñoo di ko saxalaat ci li nga ko basé ci li nga xam mooy génn donte wax ko nekkul loo xamante lu wér la waaye li kala allah l muy téere bu am solo lool ci ŋaññi li nga xamante ni mooy bidaa ak soññ ni ñu tënku ci li nga xamante ne mooy sunna déglul ibnu al imam Shaatibi bi wax xam nga lu wax fam la taamal dafa ne wa adhafu haulaay ihtijajan qawmun istanadu fi akhdh al amal ila al manamat ñi gëna faible ay lay gëna doyé di ay preuve moy ñi nga xam dañuy sukkandiku di jël seeni jëf diko tënk ci li nga xamante ne mooy ay nelaw comme tijani ñu ko défé waaw indi li nga xamante ne mooy tariqa tijaaniya salatul fati toftale ci ay ngeenel yo xamante ne doo ko fekk fenn ci al qur'an sunna day tolloo li nga xamante mooy alquran six mille fois ak yéen ak yéen yoo xam te bari la jawharatul kamal boo koy jàng faaw nga yor njàpp far force yaa xi l'islam bi nga mu julli ci gën a foor ginnaaw tawxid boo yorul njàpp permettre nañ nga daal tiim bal même bu ndox amee waaw te mënoo ko utiliser mën ngaa tiim julli ñaan lay jëfar kamal boo koy jàng doo yor amoo droit di def li nga xamante ne mooy tiim ak yu mel faaw nga yor njàpp ndox yooyu ay tapare ci ceexaan la quoi ala kulli xaal chaati bi li mu wax dafa ne wa adaafu haula ihtijajan قوم استندوا في اخذ الاعمال الى منامات ني غنا فيبل او لاي مو نيغا خا داني سوكانديكو سيني جامو يالا تي اي غنت خاغا خا تي لا ني مام لا ني ديف اك لا ني باي تي غنت تي لنجكاي بازيو مني فيقولون راينا فلانا الرجل الصالح فقال لنا اترك كذا واعمل كذا نون دي غنت نان غيس بن واجو باخ مونو ني ديف لين لي ولا باي لين لي deglu shaq bi li wax mune wayatafiqu hadha kathiran lil mutarassimin bi rasm at tasawuf neena ñi ngi def li dafa deppok lu bare bare ci ñi nga من وربما قال بعضهم رايت النبي عليه السلام في النوم فقال لي كذا من امانه صح لا جسنا يونس عليه السلام تي جنت كون يعني دا مختار سار نين سن طريقه جيلو نكو تي جنت مي يقاصه نكو جيلي يونس يعني بي لنكو جخ لوخوك لوخو والله المستعان كون آه، شاطبي ميغي غاني نيغا خاونتي داني نان سين مبير نينكو بازي تي اي جنت نان جسنا ديكو باخ بوخ ما دارا ولا سا جسنا يونس عليه السلام منيما نانغام نانغام ولا ما ديغال ما نانغام نانغام muni muy def ak bayyi ci loolu la koy basé wu ni fi nag ñukk li nga xamante ni mooy li nga xamantene moy tire yàlla bek sunnatu sallam wa mo ramani fa ya'malu biha wa yatruku biha muridan an al hudud al mawduiyya al mawdua fi sharia kon mom muxtasar Sarr dafa doon tuxal lii lépp irshad bi lu ci tek mu ne wax xafa loolu ak njumte erreur la di basewu say jaamu yàlla ci ay gént gént moy lan kon gént ñetti façon ñu wax la mu li anna ruya min ghayr al anbiya gént bo xamantene bayiko wul si lolu la yuhkam biha shar'an ala hal des ci atté lenn ci shari'a abadan illa an tu'rad lu dul ñu garal lolu ñu gént ci li nga xamante mooy atte charia yi mu ne ala ma fi aydina min al ahkam charia mu ne fa in umila bi muqtadaha bu fekkee nit ki la mu gént gaaral nañ ko ci alquran sunna comme ni ma waxoon sànq nga gént gis yonent bi mu lay soñ ci li nga xam mooy def lu baax ak mooy ci sunna moytu bida loolu kay sunna l'islam moo ko jàngale amul benn problème moo tax chaatri mu ne bu fekkee lu mel noonu la gént amul benn problème nit ki mën nañ ko jëfee mu ne wa illa bu fekkee du loolu nag wajaba tarkuha dañ ko war a bàyyi wal i'raad anha dañ ko war a dummooyu am gént googu bu fekkee dafa ñu wuutee li nga xam mooy xuraan sunna kooku dañ ko war a sànni fële waaw mu ne wa innama faidatuha al bishara gént googu li njëriñam rek bu fekkee da nga gént ñu lay soññ ci lu baax ah wala di ci li nga xamante mooy safaan wi bu boobaa loolu ak mbégte la rek ci jaam di ko bégal wala ñu koy xupp ci dara fekk mu nekk ci naka suul noonu mu gént ñu ne ko maytul lu bon kon loolu rek lay tete mooy njëriñ bi waaw benn nit ki nekk ci lu baax ñu koy soñ ci loolu mu nekk ak mbégte ci moom wala mu nekk ci safaan wi mu génte dara loo xam daf koy maytandiku loolu ngir xupp ko loolu kese la moo tax chaafri mu ne wa amma wa amma istifaratu al ahkaami fala waaye des su jëriñoo mukk ci li nga xam mooy gént ah naan dañ ci jëlee ay atte kon moom waxu chaafri daf ko doon tuxalam jeex mu ni kama yuxka anil kattani gis nga kama yuhka comme niñ koy nettalee lim lim utiliser mooy siixatu is at tamrid kama yuhka comme niñ koy nettalee nga xam tane dogu ci nettal bi kenn xamul wér na wala wérut mu ni comme niñ koy nettalee kon maxtar saam ci li la sukkandikoon ni Ibnu Taymiya kon lii ñu nettali ci kattaani nekkete moom kattaani jiitu na Ibnu Taymiya kon Ibnu Taymiya fii la ko basé wu loolu wax dëgg yàlla ñàkk xam li nga xamante mooy réglu xam ak xam-xam ni muy doxee moo tax ngay waxee noonu kon Shaatibi mu ni comme niñ koy nettalee ci kattaani ndax kattaani nee na gis na yonente bi alayhi salaam mu ni ko ah mu ni ko uddu allah an laa yumit qalbi ñaanal ma yàlla mu bañ a rey sama xol nee na yonente bi ni ko del wax li nga xamante ni mooy quarante fois yaa hayy yaa qayyum qul kulla yawmin arbaina marra del wax li nga xamante ne mooy quarante fois yaa hayyu yaa qayyum laa ilaaha illa kon gént googu ñu nettali ci kattaan yi loolu dafa laaj li xamante ne mooy mooy ndëslaay même bu fekkoon sax lu wér la loolu kenn du ci sukkandiku dañu xam ne gént googu daa wuuteeg li nga xamante ne mooy charia parce que charia képp gis na yonent bi mu loo xam dafa wuuteeg li l'islam jàngale loolu lañu naan gént wu ñu koy rejeté ak si ku mënti bàyyi ko kon Maxtaar Saa ci lii la sukkandiku ni Ibnu Taymiya la mu doon def kon fii ko jëlee te wax ko looloon ak tuumaal la waaw parce que Kattaani mi waxul sax ban heure la dafa ne rek del def yaa hayyu yaa qayyuum laa illa anta ah 40 fois te Ibnu Taymiya da ci won doli bi rahmatik astaghif waaw mo tax kala Imaam shati dafa ne li nga xamanteni moy mooy tudd yàlla bi amul ben problème mu ne fa hadha kalam hasan laa la ishkaala fi sihhati tudd yàlla bi amul ben problème lu wér la moy yaa hayyu yaa qayyuum laa illa anta waaw parce que neena na tudd yàlla yuhyi al qalba saxiix charan day dundal li nga xamanteni moy xol shati moy wax de kon Ibnu Taymiya loolu mu doon wax ni day dundal xol tuddu yàlla lolou yonent waxon na ci ni misalu ki tuddu yàlla ki tuddu yàlla dafa melni kuy dund ak kudé kon moo tax Shaatibi confirmé ni wax ji nga xamanteni han mom la kattaan gént amul ben problème moy ya hayya qayyum la ilaha ilaaha illa tudd yàlla amul ben problème ni kii noonu tamit tudd yàlla day dundal xol wa muni wa faidatu ruya at tanbih al khair kon njariñu gént moy bàyyi lo xel nit ki rek ci lu bax muni ne wa huwa min nahit al bishar kon dafa melni dañuy di bégal nit ki muni ne wa innama yabqa al kalam fi at-tahdid bil arbain li des kay moy ñu xool lim boobu nag ci na nga ko def ci li nga xamante ne mooy quarante mu ni loolu wa ida lam yujad ala luzum istaqaama waaw kalab shaat dafa laaj li nga xamante mooy faham wa ida lam yujad ala luzum istaqaama lim ci nam mooy loolu mu doon def nit ki ci li nga xamante ni mooy di def lim boobu bu fekkee daf ko def rek mu tombe te jubluwu ci li nga xamante ne mooy taqoo jaamu yàlla mu ne boobu amul benn problème amaana su fekkee ne dafa koo taqoo di ko def bis bu nekk lim boobu ba dugg ci li nga xamante mooy cadre cadre sos kon lii mooy kalaamu kalaamu Shaatibi rahimahullahu rahimahullahu taala kon dañuy gis ni Shaatibi bi mu tuxalee lii dafa ni rek nettaleef na nettaleef na ci kattaani mais laataa ma wax loolu dafa ni gént kenn du ci basé ci li nga xam ne atteb sharia ŋàññi li nga xamante mooy gént ni loolu njuumte la ba pare ni am na lu ñu nettaleef ci kattaani ah mu ni loolu amul benn problème ci li nga xamante mooy tudd yàlla bi ni day dundal xol mais problème fi mu nekk mooy defal lii 40 kon loolu dafa wutee li nga xam ne sharia ibnu taymiya def koog ma sàmbaag ma ma paatee ci yam kon ibnu taymiya loolu mu def nekkul loo xamante ni dañ koo dañ koo yoonal waaw kon ñoom ni ahlu sunna wal jamaa amee ak ñime ñëw leeral li nga xamante ibnu taymiya loolu mu def nekkul luñ sunna nekkul luñ yoon te ibnu taymiya sax fo kan la jox werd bi xamoo mi na ibnu taymiya joxe na werd bi kan la ibnu taymiya jox werd bi kan kan la ko jox ibnu taymiya loolu ab laaj la ibnu taymiya kan la jox werd bi ci ahlu sunna ndax ndonga ibnu taymiya dañ ko doon def loolu amut ibnu qayyim dafa ko da ko doon def nañu indi leslay ndax ibnu taymiya dafa ne lii ku ko def ah dafa nek lo xam ci sharia la bok waxul lolu dafa nek ku def li rek yàlla dina dundal sa xol ta lolu saxna ci li nga xamantene moy alquran sunna ki tuddu yàlla xolam day dund kon im taymiya li mu def ni askane lu ko ci li nga xam moy sharia ibnu qayyim tamit ni ki noonu ndax dafa doon def wala ibnu qayyim dafa tuxal li rek nettal li nga xamantene moy li ibnu taymi essayé won la lan moy taxaway wa ahlus sunna ci werd bi dañ ñëlal li bid'a la nek lu ñu kon lolu wax deug yàlla ay laaj yoo xamantene yeb daf ko wara tontu ibnu taymi kan la jox werd bi ndax dafa ne ci sharia la bokk wala lu mu essayé dañ ko def la mu gis si njëriñ te amaana mu sukkandiko ci hadith bu daif te loolu mooy not comme nam ni mu gisee woon ne xadis bu daif bu fekkee dafa ñëw ci li nga xamante ne mooy ay ngëneelu jëf la mën nañ koo jëfe moo tax borom xam teg ay charte ni bokk na ci jëfee li nga xamante ni mooy alxadisu daif bu fekkee ni ñëw na ci li nga xamante ne mooy fadail amal teg nañ ci ay li nga xamante ne mooy lan ay shurut ba ci ëpp solo mooy an laa yaataqi inda al amali bi thubutu waaw bal yaataqi sahib ihtiyatan mooy ki koy def day bañ a fas ni lii ci yonent bi la bàyyi ko mais mën na koo jëfe pour ba pour pour ANCAR rek waaw. ba pare du nekk xadis boo ne dafa faible lool te Ibnu Taymiyya wax na ko sànq xadis boo xam te nekkul loo xamante ne mawdu lu ñu fent la bu boobaa <laughs> mën nañ koo jëfe kon Ibnu Taymiyya dafa xam moo tax boroom xam bi ñu dajalee waxam ni gis ni amaana ko la mu def daf koo basé ci xadis wérul mais ànd loolu lépp nekkul lu yoonal ba pare am ñime leeral ko mais ñoom kan moo ci ne taxaw leeral sa sëriñ nekkoon ay caxaan la kon wax deug yàlla ñi dañuy fo di caaxaan di fontu ni waxantuma la benen bi gëna graw mu ñëw di ñen day def muqaarana wa moy ñen day comparer Ibnu Taymiya ak Ahmed Tijani lool dafa melni athara wa suraya wa thara wa suraya xaw nañ dend mais dafa melni ni ak suuf dafa melni yàlla ak yàlla bokku ñu ko xamanteni dund mbep daf ko wax dëgg yàlla jeexal ci li nga xamanteni moy dimbali sunna han xeex li nga xamanteni moy bida ko nga bëgg koo ñëw ko xamanteni ne bëgg lëkkale ko xam dafa ñëw sos ci li nga xam moy diine yàlla subhanahu wa taala loolu wax dëgg yàlla nekkul ak mandute moo tax ñoom su fekkee fa lay jeexalee ñoom dafa bokk ci seen i stratégie mooy bu ñu demee ba sunna sonal leen ak ki koy woote leen rek lañ dese mooy jabaliser ko dem boole ko nguur te ibnu taymi rahimahullah taala boo xoolee dugg na li nga xamante ne mooy kaso lu toll ci juróom-ñaari yoon dundam bépp kaso la ko passé ibnu taymi rahimahullah taala ndax su fekkee ya fa nekkoon dañoo soxoroon moo tax ibnu taymi kenn tëj kenn mësu koo tëj ñu dafa sàcc kenn mësu koo tëj ñu dafa tuur deret kenn mësu koo tëj ñu dafa def ay bàkkaar waaw mais lañ ko tëjee loolu lenn dong la mooy topp yàlla subhanahu taala kenn mësu koo tëj dafa génn en song nguur jamais mais lañ ko tëjee leen dong la mooy lan mooy topp yàlla subhanahu wa taala ak xeex li nga xamante ne mooy bidaa waaw année bi ci njëkk mooy 693 ci lañ ko tëj boobu mi ngi am 32 ans ndeysaan ci la taalifee téeréem boobu mooy assaarimul masluul téeréem boobu nga xamante ni ci da doon leeral ki nga xamante ni moo lan moom moo saaga woon yonente bi alayhi salaam donte sax ko finalement mu na tuub chrétien boobu saaga woon yonente bi alayhi salaam mu leral ni ku saaga yonent bi lolu kefeur la waaw kon ci lañ ko bolé woon nguur ñu fexe ba fexel ko dat koy tëj ginnaaw lolu après mu dadi mu dadi gennat naam deuxième fois bi tamit ci Égypte la won ci Qahira Caire ci année 705 tëj nañ ko fa tollu ci li nga xamante moy 1 an et demi naam lolu nak lako waralon moy wax ji mu waxon ci walu arsh ak kalam ak an-nuzul wax ci melokanu yàlla leral ci position ahlus sunna wal jamaa ña nga xamante ne ñoo fa nekkoon bokk ci ashaira xam moo tax moo tax soufiyaan ke noonoo gi ñu noonoo sunna du tey lu yàgg la lu ay siècle siècle la lu yàgg la kon ñi nga xam ñoo fa nekkoon nekk ay juge ah noonoo Ibnu Taymiya bokk ci al-Ash'ari ñooñ ñoo ko boole ba daal koy tëj ci la taalifee téeram boobu ñu tuddee al fatwa al hamawiyya al hamawiyya fatwa al hamawiyya xam ab fatawa la boo xamante ne ña ko laajoon mooy ahlu xamaat waaw ca Shaam ñoo ko laajoon lu mel noonu mu tontu ci melokaanu yàlla yi naka la ahlu sunna wal jamaa gisee lu mel ni arsh mooy lan waxu yàlla mooy lan yàlla na wàcc bi wàcc moo tax am na téere bu mu tuddee charu hadithu nuzul ñu boole ko ñu daal koy tëj ñetteel yoon tam ñu tëj ko ci Égypte ci année 707 am ba 705 la bii c bii 707 tëjaat ko ci lu toll ci li nga xamante ne mooy ñaari ñaari euh, semaine loolu mooy téere boobu mu taarifoon ci Radd al Bakri waaw ak wax ci li nga xamante mooy sufiyanke loolu nag ko ko defoon mooy ki nga xam mooy Nasr ibnu Suleyman al Manbaji Manbaji kooku dafa soxoroon Sufyaan bu iñaanoon la iñaane ibnu Taymiya xamante ne dafa amoon ab zaawee ci al Xuseyniya dafa doon fa jàngale mais dafa ëppaloon ci ibnu Arabi at Taayi mi nga xamante ne doon wax ay kufriyaat ak ak ak Ataawul ibnu Ataawul al Iskandaraani xam ngeen Sufyaan boo dégg ñu naan ndax am nga téere Ataawul al Iskandaraani al xikam al Ataayiya kooku Sufyaan mag loon ñoo gënoon noonu ibnu Taymiya bokkoon nañ ci xuloowaayam li gën a tar waaw ni ko yoon tamit Bakri kon ñooñu dañ koo noonoo woon te masala boobu nga xamante ni ci lañ ko tëjee woon mooy ibnu taymiya ne laa yustaxaaf illa billah deesul xettale ci kudul yàlla kon ñii ay woote ay wootekat shirk lañ woon moo xam man ba ji la wala ki nga xamante mooy Ataul Askandarani wala Bakri moo ibnu taymiya téere boobu mu tuddoon mu tontu woon a raddal Bakri ci radd sufiyanke yi ci li nga xamante mooy mën nañ euh, duñ xettali ko ci kenn ku dul yàlla kon ci lañ ko boole woon dem boole ko ki nga xamante mooy sultaan bi nekkoon fa jamono jooju koy tuddee Pibris ah Jasankiir kooku ko tëjoon mu nekk lu doy waar kon dundam bépp ay kaso la mu nekk 707 ci kii bi nga ne tamit dafa génn rek ñu tëjaat ko waaw kon Soufiane Gueye dañ ko sosal la sosal la sosal def na Oustaz Oumar Sall koy porte plainte beneen bi tam 709 tamit bi nga xamante ni euh, Ibn Taymiya ñu ngi ko tëj ci Alexandre foofu la woon mooy Égypte deuxième capitale mooy Ascandaria foofu tam dañ ko tëj loolu lépp ay pexe sufiyanke la ñoo ci dox bañ tëj ko waaw dox ci ba ñu tëj ko te dara war lu ko dul noonoo gi nga xamante ni noonu nañ ko moo tax foofu la waxee woon bañ ko tëjee nag tëju mujj euh, juróomeelam ba ci la waxoon ni man de wax dëgg yàlla ah in qutiltu kaana li shahada buñ ma rayee man wax dëgg yàlla loolu ma ma am ma nekk shahada nekk martyr bu fekkee dañ ma génne exilé ma ba day nek lolou hijira ci man bu fekke nak dañ ma dàq ah jë maam sànni ma ci àll bi loolu de wax deug yàlla day nekk loo xamante dama koy jaamoo borom bi subhanahu wa taala di wote ci yoonu yàlla waye bu fekke dañ ma tëj ba day nek lolou li nga xamanteni moy khalwa fu may wéetale yàlla subhanahu wa taala jurum benel yoon bi mi ngi amé ci Dimashq moy 720 bobu vingt tamit dañ ko tëjoon ci masala bo xamanteni moy masal talaq moy euh ku fase nit ci benn baat ñetti yoon ni ko fase naa la ñetti yoon wala ni ko fase naa la fas naa la fas naa bu boobaa wax dëgg yàlla day tàbbal du tàbbi im tayme leer leen loolu non non waaw maam boo waxee nit ki naa la ñetti yoon loolu lañ koy jàppee benn fase wala nga ki fase naa la fas naa la fase naa la benn yoon lañ koy jàppee te loolu mooy li amoon nit ñi dañ doon caaxaan di fo ci li nga xamante ne mooy ay euh, fase yu mel noonu mu ni képp ku ko defate dama koy compter ñett kon Ibnu Taymiya loolu la leerloon ni position bi nga xamante ne moo amoon jamono yonent bi salaam ak jamono Abubakar ah ci ñaari at ci xilaafa ak ci ñaari ci xilaafa Omar parce que Omar ibn Khattab bi toog ñaari ci xilaafa gi loolu moo amoon mooy képp ku ni sa jabar fase naa la ñetti yoon wala ni ko fase naa la fase naa la benn fase lañ koy jàppee Ibnu Taymiya loolu la fatawaa woon woon ah ñu daal di ñëw nag daal koy boole li nga xam mooy nguur nga xamante ne mooy diine borom sonta tax juróom-ñaareel yoon bi foofu tëj boobu nag ci la génne àdduna rahimahullah taala rahmatan waasi'a kon Ibnu Taymiya nga gis ni dundam bépp ci ay kaso la ko passé ànd ak loolu wax dëgg da doon taalif ci biir kaso ci la taalifee Majmuul Fatawa doon bind doon ko doon imlaa nit ñi di leen ko imlaa di leen ko dicté kon ko borom xam la boo xamante ne du caxankat kon li ñu bëgg a wax rek mooy kon sufiyanke yi am nañu rôle bu garaaw a garaaw ak ar-rafida ash-shi'a mooy chiidi moo tax docteur Ahmed Lo leeral ci téeram boobu taqlid asxaas relation bi am ci diggante chiite ak sufiyanke kon yàgg nañoo noonoo li nga xamante ne mooy waa sunna jàpp ni daal bu ñu nee amatuñu ay pexe léegi li ñuy def mooy dem ci nguur daal koy boole mu daal di ñëw jàpp daal di tëj kon euh, loo xamante ne dara du dëgg ak ñëw di euh, défendre bir di ko comparer ak li nga xamante ne mooy benn waay boo xam defoon ak njuumte mais na nga ko défendre ci li nga xam mooy alxuraan ak sunna ci déggnu saxaaba yi kon loolu lañ bëggoon leer incha allah am na yeneen vidéo yoo xam ne dañ ci ñëw incha allah bu ko jot bi maye bu ko jot bi maye hada wallahu taala ala wa alam wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabina muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh